jërëjëf Limaamu Laay yow mi nu xalal yow lislaam xamal nu laaw bi saba Allah woo jotal sa woo teru yépp ngay wax naan lu fiiru dina ñëw see asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mbooleem auditeur ay Haïbou TV fu ñu mën a nekk ci àddina bépp góor ñi jigéen ña mag ña ndaw ña xale ya ngi leen di nuyu di leen yaara di dellu ci waxtaanu sang bu tedd bi si fa ñu toll woon dañoo waxoon ne kilifa yëpp ñu ngi fi woon fekk fi Seydina Limaam Mahdi alayhi salaam te weddiwuñu ko di jëflanteex moom ay taraanga te kilifa yooyu kenn ëpp leen xam-xam kon nag ñi nga xamante ne tey jii dañoo yor rajo yi ak média yi fépp di wax ak ah, di weddi. te ku ci nekk ci kilifa yoo am nga ko ci jokk ci ñoom boo jokkoo ci ci Ahmadou Bamba Xaadim Rasul yaa ngi jokk ci maam El Hadj Malick si te ñooñu ñëpp amul kenn ku ci taxaw na Seydina Limaamu la muy wax du moom lu tax kenn weddi ko ndaxte day moom Seydina Limaamu buñ ko weddee mooma buñ ko weddiwul mooma ngir yonante bi sallallahu alayhi wa muhammad ma yàlla yónni def ko gën di mbindeef sa makkatal mu karam ñu sonal ko mbokk yàq ñépp ànd weddi ko mu jaral leen seeni bëkken ñuy xeexax moom di dee te taxul ñu bàyyi ba mu gàddaay dem medinatul munawwara te la yàlla yoon woon taxul mu bàyyi ko lu dul di ko saxal ba tey ji àddina wërngël képp ñu ci ëpp ñëpp ñu gëm ko waaye ñaata siècle la ooteem boobu def te terewul ba tey am na ñu koy dinga di ko weddi kon ab yonant bu yàlla yónni baaxoo nga am ñoo xamante ne duñ la gëm waaye nag ñàkk laa gëm terewul it nga nekk moom kon waxoon naa leen ko ne leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xayru xalqillaahi mi yàlla def muy gën di mbindeef benn ab yonent moo ko déclaré mooy yontu yàlla insa déclaré ko ci ab téeréem ne am na yonante buy ñëw suma ginnaaw kooku mooy gën di yonant mu ne ismuhu Ahmed Ahmed lay tudd bu ñëwee topp leen ko dëggal leen ko waaye ba mu ñëwee ña nga xamante ne ñoo toppoon yonte yàlla Isaa la tax ñu weddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ahmed ga ñu leen waxoon kii tëdd Mouhamed ñu ne kon du moom xoolal différence boobu Ahmed Mouhamed ñoom ñu ne du moom te ñun jullit ñi ñu ngi ko gëm dëggal ka àndax moom te ña nga xamante ne wàccoon na seen téere ñu tegtale ko ba tey gëmuñu ko te ñooñu ñooñu ñooñu ëpp fuuf ci àddina ëpp ñu ay moyen fuuf ci àddina ëpp ñu doole fuuf ci àddina te taxul ñoom ñu nekk ci dëkk tey jii ñoom ñu ngi gën a tabax seeni juma di gën a tabaxal seen jàkk di gën a tabax seeni jàkk yooya di gën a dooleel seen mbooloo waaye taxul nag ñu nekk ci dëgg ñun jullit ñu ñoo gën néew ñooñu fuuf waaye terewul ñun ñoo nekk ci dëgg waaye ñu nga ngoy sa la ñu ngoy ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën naa wax ci limaamul mahdu ay tettali tettali tettali tettal tettal yooyu yëpp méngoog suñu limaamul mahdi yu mii ngeen du moom te yonente bi ni mu waxee limaamul mahdi yu mënul doon kenn ku dul moom wax ba sa jëkk dana limaamul mahdi mooy ki nga xamante ne bu ñëwee mooy feesal suuf day fekk suuf fees dell ci tooñ ak mooy ak mu feesal ko dell ci njub limaamul mahdiyu mooy ki nga xamante ne max moom ni nga ñuy méngaleel day mel ni taw bi nga xamante ne mooy saxal gàncax gi ah, taw bi kay ñoral man may taw bi saxal gàncax gi limaamul mahdiyu mooy taw bi ñoral gàncax gi yonent bi tegal ne leen taw bi saxal gàncax gi ak ah, taw bi kay ñoral ban moo ci gën saaba yi ne ko xamuñu ko mu max li limaam max du noonu la ñu mel kon nga jàngeen foofu ne yonent bi ku mu max moom kan moo si gën ñu ne xamuñu ko kon kooku du doon kenn ku du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegaat si ne lam tax li tahliku ummatun anna fi awalihi wa madi wasatihi wa insa ibnu maryama fi axari daxwa mu ne sama xeet du ngeen jaaxle sama ginnaaw du ngeen alku ndaxte sama ginnaaw limaamul mahdiyu mooy topp si man mooy ñëw limaamul mahdiyu bu ñëwee ba jàll insa ibnu maryama si topp yonent bi ne leen maa njël benn xeet wi waaye limaamul mahdi yu moo si topp waaye ginnaaw limaamul mahdi yu Isa ibn Maryam waaw rang boobu beneen wàllu yu ngeen ci mën a gis ku nekk ci diggante Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yontu yàlla Isa kooku man ngeen a wax a wax a ba def ko wàllu limaamul mahdiyu mooy ki nga xamante ne jur isaa walla mu yar ko waaye isaa moo koy wuutu mooy doon xalifaam limaamul mahdiyu mooy doon ilimaani yontu yàlla isaa waaw ginnaaw Muhammad isaa si gën kon kii nekk ilimaani yontu yàlla isaa kooko mën la doon kenn ku du yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente bi mu ne limaam mahdi bu ñëwee moo nekk ki nga xamante ne moo moo may moo may roy mooy xeeñtu suma jiixit te du moo may Hmm? mu ne dina ma nuuru dina ma nuuru si lépp ba mu des si melo si melo rek la ñu uute waaw kuy nuuru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci léppam ba mu des aw meloom kooka kan lay doon ku dul moom. lu da ngeen di mën a weddi rek waaye mën leen a weddee weddee weddee weddi ba mu jog fi wooteem bi nag sax na àgg na Kajoor àgg na Bawol àgg na Njàmbur àgg na Siin Saalum àgg na Gànjool àgg na fépp àgg na toj na Waalo toj na Jolof ñoo ñëpp gàddaay ay mag jóge fa mag ñoo am xam-xam ñu nga xamante ne yàlla may na leen diine bàyyi lay taxaw fi oote ootem ba ajiboo daye la hiya masara insi wal jinni inna rasulullah aleykum booba rajo amul télévision amul journal amul téléphone amul internet amul dara amul woote ba dem tabbi su noppi mag ñooña waalo gàddaay njàmbur gàddaay bawol gàddaay ganjol gàddaay Saalum gàddaay ñu ñëw uyse yonente bi yàlla bi fii ci sawub jant bàyyi laay sanc Cambérène yóbbu ñenn ñi yëmbal yóbbu ñenn ñi Malika waa Ndar gàddaay am kilifa yu mag yu jóge Ndar ñëpp ñëw uy si bu tedd bi ngeen di toog toujours naan nangama nangam tey jii dama ne tey la média am mais ba média amul woote bàyyi ba jàll na àgg na fa àddina wërgël képp ba nit ñooy joge fa nekk di ko use da ngeen tardé weddi oto bi tuut ngeen si weddi oto bi ku ko sa maam mën la dindi sa baay mënu dindi yow mënu ko dindi ndaxte woote bii fekk ne fi seeni maam fekk fi seeni baay mënuñu kaa dindi kon yéen ñii mënu lañ kaa dindi ba yóbboo ngeen noppala ko ba àddina bépp àndoon du complot pour woote bi bañ dem woote bi day dem bàyyi lay neen xat kuntu fawxakum dunya wal axirakum jàlle nii laaw fawxa xal yi kulli bàyyi laay nee na salaam nee na ya xat kuntu foofu gum yàlla def na ma seen kaw duniyaa fii si àddina wala axira kom ak alaxira jàlla nii laawu fooxal xal xi kulli mu ne yàlla moom yëkkati si kaw mbindeef yëpp ma tiim leen sut leen àddina ak alaxira maa leen kawe du ma seen morom fii si àddina te ba alaxira du ma seen morom Seydina Limaamu ne arsalani ka anbiyaahi laahi kama alamana kitaaba laahi wahdan wa rahmatan na ajibo dayalaay yama saral insi wal ini rasulillahi alaykum Seydina Limaamu Laay nee na arsalani ka anbiyaa'i Ilaahi mu ne yàlla dama yónni kam na mu yónnee woon yónnante jiitu yoon kama alamanaa kitaabalaahi mu xamal ma péerim comme na mu xamula woon yónnante jiitu woon wax dan war xamatan lil aalamiin ci njub ak yërmande ngir jëm ci mboole mbinde fi mu naa jiboo daayalaay mu ne uy si leen oto yàlla bi yaa mahsaral insi wal jinni in rasula aleykum baatab yaa mahsaral insi wal jinni in rasula aleykum moom la mbindeef dootu wax nit nag mën naa woote nab yonante la waaye yàlla yónni na ma ci mboolem nit tax doo dégg kenn ku ko waxati Muhammad ko waxoon démb sa màkka Seydina Limaamu moo ko tolloon te tey yonante yi ma sa woote yëpp ma suñoo wax ne yàlla leen si nit tax ku si nekk saw xeet ngay oote saw xeet ngay oo ne leen ma yónni si yéen waaye Muhammad moo oo nit ak jinne seen aliment moo dellu saat oo nit ak jinne keneen du ko wax ko nag woote baa ngi ñëw yàlla nañ si yàlla yóbboo jàmm tey jii ñu teg suñu loxo foofu te xam ne nag weddi weddi weddi weddi ndaw ku weddi ndaw te laajuloo su ngeen layoo mu sànkala ka yàlla yoon nu muy jotal mbindeef ya booboo wàcce na weddi weddi manula tere la yàlla yónni ab yonentam mu jotale ko kon nag ku ci weddi ku ne da ngay alak sa bopp waaye woote bi moom dëgg la te yàlla ko dooleel te ku yàlla dooleel téye la boppam nga àgg fa nga jëm allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa jigéen ñaa ñi ànd góor di gañtu islam tey yow yaay ki xàllum yoon